taxaw leen filmel ma ñu ay ma meeram taxaw leen taxaw leen taxaw leen ay ca taxaw leen taxaw leen abijee taxawal xale biile biile ñaan si ko ñu mi la baanata xale biile biile ñaan si ko ñu dañoo ñëw fii nii de te nii ngeen def di ma seetaan di gën a xam lan la ndax alxames bi dafa jib ma ciy profité kooku nga xamante ne mooy doomu Medina bu ñu nee Medina TV doomu Medina di jël jabar du ñu def lu ñu gunge ko le Neymar de la musique sénégalaise l'enfant chéri de la Medina ah def na li war takk na de takk na soxna kan la takk nag dañ kumpa bee ngi noonu kan la war a doon ndax macha allah dafa xewoon ci jamono jigéen jëpp jox ko boobu. topp leen ma di ngeen xam kan la takk. Marème Keita tur bi mën nañ ko xam. Daba Diène. nga tudd. nga dëkk fii. Fassou. Daba tey lan nga lan sant ci bés bu rëy bi kontaan na. kontaan ci kaw ni wala dëgg wala yow kontaan hmm, nga sant. Ah, neex na moom ndax nga nga nekk ak artiste El Hadj ku ndaw bu ñu nee la Neymar de la musique sénégalaise kon kooku ndawul jigéen ñu topp ko jox ko bopp tey mu bàyyi ñëpp ñëw simple la. sa diggante ak moom dafa yàgg wala lan moo ko indi. yàgg nañ moom yàgg nañ ñaataat ngeen de. deux ans. ah deux def mu takk la xanaa da ngaa jomba El Hadj. <laughs> moom kay moom moo la <laughs> kon nag bis bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla def barke. su borom def njëriñ barkeel barke Seydina Mouhamed yàlla nañ dem ba fekkee ay njëriñu doomam barke Seexul Xaadim su ma ko defee la njëriñ barkeel ba ñu fekkee seen njëriñ barke Seydina Mouhamed kon sa waaj. donc dundee suuf di mago Daba Diène di xaritu Daba Diène ah bés bi xam nga ne macha allah du ñuy def lu dul kontaan vraiment kontaan bu suñu xol yi fi ñu toll dafa sedd ba mënuñu wax vraiment parce que Daba dafa mérité bés bi man sama raq la sama xarit la muy nit ku baax ku sincère moo tax vraiment su xewlee bés bi lépp lu lu waaye euh, amoon rek jàppoon rek danga koy bàyyi pour ñëw man man sama xarit la sama raq sama lépp dafa sincère bëgg ma barke Serigne Saliou moo tax ba sëñ bi dama ko si ñaanal li mu bëgg lépp si diggante ma El Hadj yal na koy sunu borom defaral ah ñu am si njaboot ju barke ah macha allah ñuy sëye sëye sëy ba dem ba nekk màgget ku nekk yor sa bant waaw pour moom diggante nag El moom wóolu naa ko ndax am na classe diñ na ah, yem na déggoo ma de xam nga art El Hadj la. ak ñuy daw ci ginnaaw bëri na mais kii da koy gérer macha allah ndax dafa diñ loolu mooy jigéen ak classe. Euh, Dabi sama xarit la sama doomu ndey la ñëw tey jëkkëram ñëw nekk sama pàppa El kii mën a moom nekkatuñu ay xarit mun ma wax si moom sax sama nee naa ko man suma yàlla laajoon sama yaay du sama moom laay bokkal ndey ak baay du ma bokkal keneen ndey ak baay Dabi Jën taxaw na ma fu ne jàppale na ma si lu ne. defal na ma lu nekk Daba jén moom ma xamal lu ma kenn xamalul te mësuma toog dégg ko fenn mu yaru baax laa biir am sutura dal tey man Daba Diène moom ma gën mooy sama xarit de mais man moom ma gën mooy sama meilleur ami lépp lu ma métti Daba Diène laay woo su ma amee lu ma naqaree Daba Diène laay woo balaa may gis kenn Daba Diène laay njëkk a gis Daba xamal na ma lépp sama àdduna kii lépp la ma xamal teg si jëkkëram tey jii ñëw nekk sama papa di ma defal lu ne si àdduna te gëm naan du ci gis lu mu lu lu mu ragal parce que Daba Diène baax na am na sutura te sutura mooy doomu aadama billaahi wallaahi yàlla rek laa lay bàyyee man yàlla yàlla laa lay bàyyee ma wax nag mais bàyyi naa la yàlla. waaw mbokk yi gis ngeen ne xale yaa ñi yee ngi nii di ay xaritu Daba Gueye du ma def lu dul laaj leen ñoom lu ñu lu ci xew mi daal soxna si de. maa fi. yaa si jàmm. maa ngi ci jàmm tey ki ñuy euh, madame Keita sa lan la. ah sama copine la. ñoo bokkoon école depuis primaire ba léegi waaw ah, kay aw ma fayam daba ku baax la xam nga bëgg ko wax dëgg xam amul benn problème lii moom yéene woon naa ko parce que lu yàgg lu ne dëgg la élage moo ñu bëgg ñun tam ñu bëgg ko woon bari doole. génnal génnal kay kay yow lan nga ci xew mi. jaamam laa. yow jaam sa orange baax na de. merci la am looy wax daba ah xanaa mu muñ toog sëy eh? yàlla moom ki mu ko boole nitu nit ci la. donc mu xam ni ko ko dugal rek mu toog muñ loolu laa koy conseillé. jaamul tuuti may ma si jaam. <laughs> damaa xaw a yem ba. <laughs> man de magu dabalaa. ah noo tudd. may mun a fay. yaa ngi si jaam. waa daba xanaa di ko ñaax rek mu sëy waaw ne ko daal na topp tànk yaayam rek ndax lu baax lañ ko xamee na sëy sëy bu rafet incha allah loolu lañ ko yéene madame Keita di ñaan El tamit mu téye ko téye bu rafet. waaw ndax Diriyanka lañ ko jox na xale bu rafet xale bu jongo ma la mais ñu mën ko rek ku gën a soññ rek ñu yokk parce que nekk xar nga si bopp nga muur rek toog yàpp ñàpp rek comme loolu la ko jàpp. sa bis xarit bi. waaw mais loolu la rek. kontaan nañu si mu baax. laala tuuti. bilaay doom yaay lakk dem ko yaay. bagulho, bagulho. Dégagant, dégagant, certo. mu yàgg moom doon seexam mu niroo macha allah. garaay garaay. max. magat. boo baaxee moom ñu ñëwee si la boo baaxul. ñoom garaay. ah loolu la nga am ne wax El Hadj ak ni mu duggee ci sëy. dafa kontaan rek waaw di ko ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko yëpp soxna si projet kanam ñu jur sa kanam ak njaboot bu barke maam turandoo waay turandoo man loolu ma leer loolu ma waaw ba tey ñu ngi ci ay xarit am baabu noo de. waaw maa ngi nuyu Sofia. lan ngay wax ci bés bi. waaw bés bi xanaa kontaan si rek. waaw Saare moom jàmbaar la quoi. waaw kontaan nañ si moom trop yàlla xam nga loolu. moo waay. wala yàlla waay. ci loo nekk. ça va sant yàlla tey am nga contentement. waaw bu baax sax. di di rafetlu di kontaan tamit seen i jot am nii. donte gars yi yëguñu ko sax dañ demoon waxtaan rek ñu may ñu. waaw dama koy ñaanal yàlla yàlla barkeel say taxawu ko. waaw lu mu si jublu suñu borom.

te El Hadj toll na foo xamante ne mu takk léegi nii sax moo gën parce que milieu bi ñëpp xam nañ ne dafa dafa doy waar. Mm-hmm. te boo teelee takk soxna di nga xam lu bari si àddina te li nga bëgg si aar bi di ko mën a am. looloo tax quoi mais mu li mu teel takk nii moom ñun daal dañ si kontaan te gëm nañ ne tamit dina ubbi ay buntam si kàddu yàlla parce que milieu show bi dafa doy waar quoi. stage El Hadj Keita fekk fa ay jigéen ñoo tudd Soxna Mbaye Soxna Mbaye yow lan la El Hadj Keita ndax jigéen ñi daal dafay ñooy ànd. lan nga ko wax ci bés bi ah dañuy kontaan dañu ko ñaanal. amuñu lu dul ko ñaanal rek parce que lépp mu am si àdduna bi ko jëlee El Hadj baax na oyof. musul changé loolu tey yàlla yaa ngi sëy bi barke njaboot bi njaboot bu baax topp si incha allah. comme que jigéenam nga. yaa nga xam fi mu nag dafa jéem mën nga am loolu ci wax. waa man bu nga xamee laaj ba léegi si laaj bi yëpp may wax si génn jigéen tey si dama sa dama rek moo tax. moo tax mu sa doon. maa ngi xamee ba léegi mosuma toog naan ma dara nga ne de. lan laa lekk dara nga ah weer naa ko xamee ba léegi. benn jigéen bu taxaw naan ma dama ko ah ñoo ko dégg noonu. lii xaw ma laa sax ma sax ma sama bët bi kay yow. ñoo ko dégg noonu moo ko internet bi moo ko Médina TV HD ba tey ñu ngi ci mariage bi macha allah dara xewul ah. nit ñi bari wu ñu élargir yëgle wu mais bu ñu mosee jaar dem ci biir laaj nañu wax lan moo waral lii. ba tey ñu ngi ci mariage El Hadj Keita bi ñu fekk fi koo xamante ne doo seen mukk El te gisoo ko ci ginnaaw mu juddoo ak moom fii ah, yaroo ak moom fii ci Medina di ko jàppale nag Malick Gadiaga waa Medina TV ñu ah, maa ngi nuyu waa maa ngi lay nuyu sama jigéen sama rak sama xarit sama chérie di nuyu waa Medina TV lii sunu yëpp la quoi donc ñun ñëpp dañ ci war a jàpp ginnaaw loolu tey bis bi tey. du bisu musique bisu ñaan soxna la bis bu rafet la donc bis bii lañ doon ñaan ba yàlla sottil ko tey ci kaw loolu ñuy ndokkale El Hadj sëy sëyim mu dugg yàlla na ci am njaboot gu barkeel am si njaboot gu barkeel macha allah ci kaw loolu El Hadj Keita dafa nekk xale boo xam ne xale bu baax bu neex a liggéeyal sama nekk ak moom nekkin bu naturel la ko nekkin bu naturel la depuis mu nekk xale moo ñëw ci man ne ma Malick comme yaa ngi ci média damaa bëggoon nga jàppale ma boobu gën a gën a nekk booy. ma ne ko ah bon mu ne ma waaw si lañ commencé liggéey ba tey noonu la fa demee. yow xam nga El Hadj ndax yaa ko yar euh, ci bësu tayam bi teelul takk jël soxna bi teelul daal. jabar dañ koy nef góor de war a teel takk jabar pour teel a toog. ca la wu mën a liggéey El Hadj pour mu liggéey normalement foog mu takk soxna mu foog mu casé wu. Mhm. la nga am looy wax soxna. waaw mu nekk soxna muñ góorgóorlu sëy yombul sëy dafa metti sëy day neex tey suba mun na xari donc mu rek la la war a dëkkee muñ.